te ñaan suñu boroom mi yoo jéggale mu boole ñu jéggal ñu ñëpp bindal ñu ay yiw ak i ngëneel ci barkeb bis bu tedd bii ci barkeb Serigne Touba mu mel ne bu nuyoo bi jàllee ak ziyaar yi tey wax fi ay kàddu dana xaw jafe ndax ñi ma fekk ñi wax ak ñi ma teewe ñi wax kenn ku ci ne li ma tudd lépp tudd na ko xanaa dañuy co sof ci lenn ci kàddu yi sëriñ su baax si fi nekk barkeelu ci rek ngir mu nekk ab soññee ci ñun ñëpp mu mel ne jataay bi jataayu fàttaliku la fàttaliku ay ngëneen taxawe aw yiw dundal ak taxaw lu mat a dundal te mat a taxaw te loolu di xaas joo xam ne nun ñi ci yàlla yemale te boole ci ak cant gu rëy moo war ci nun yàlla ci nun ngir ñu gën koo sant sunu borom ñu nuyu sëriñ bi sëriñ Mouhamed Cissé taaru ñu ngi koy ziyaar bu baax moom mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi ndax moom la Serigne Touba dénk jataay di nuyu Serigne Alxaaji mi nga xam ne moom la yàlla teg liggéey bi ci loxoom mu nekkal ñu ci tey nag li Serigne bi doon wax léegi rek ne jataay bi li fi feeñ lépp mooy wone ne jataay bi jataayu alquran alquran nag moom wax nañu mooy kan wax nañu it ci yenn ci ay barab gannaaw bam ñu waxee mooy kan kan lay jëflanteel ak lan lay def ci kim jëflanteel بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أقوم له kon wax nañu fan lañu jëmé ak kimi jëmé ci barab nan lay mel lu ci tek teg wa yubashira almuminin alladina yacmaluuna alsalihat ann lahum ajran xasana alquran mi ngi wax ak nun waaye dafa am فيه أبدا andil ak fi mu ñu jëmee fi mu ñuy jaarale muy njub gi ña cay jaar nan lañuy mel mooy ña dëggal te fas yéene di jëf-jëf ju sell di jëf aw yiw loolu lañuy jur waaye nag lan mooy tax ñi mën a jot résultat ba mooy ñu sax ca te bañ caa kon alxuraan wax naa ak nun foofu nu war a bàyyi xel bu baax nag danay faral di wax ne daara yi bari nañ lool ci jamono jii ñu nekk waaye li ci ëpp ay coppat mi ciy am ndax ñenn ci nun li sëriñ màngaan doon wax ci yar bi foofu rek lay ñëw ñenn ci nun buñ leen joxee ay dongo ñiy dox dañuy dem ba mujj yàgg ñi fàtte ne ñoom dañ leen di yarloo di leen jàngaleloo dañ koy fàtte te loolu adduna ak doomu aadama yi ñoo leen cay dugal mooy dañuy fàtte ne dañ leen di yarloo di leen jàngaleloo yar bi moo jiitu njàngale def dafa war a doon ku ñu tarbiya ba mu weesu xam la ca nekk mos ko dund ko jéggi ko dem ci tarqiya mosko ko dund ko génn ca dem ci tasfiya ak yeneen bu fekkee kooka defaruñ ko ba mu war a tarbiya bu dee jàngale itam jàngale kese lay man waaye du mën a tarbiya sëñ Alaaji mii ku jàng ci moom da nga xam da nga yaru parce que tarbiya nañ ko moom dañ koo tarbiya jëkk ñu koy xamal ñun ñi fi nekkoon xam nañ loolu ci daal mu jóge fi waajuram teg ko ci ay loxo mu gën koo dolli ak tarbiya parce que am na loo xam ne moom bu ko mënee itam sañu ko woon a def ci moom ndax moom cheikhu taalim la woon ci moom cheikhu taalim la woon ci moom kon da ko doon wan nan la ñuy tarbiya yar ko yaru baay ak doom teg ko ci yoon bi mu ko ci tegee ba noppi nag teg ko ci loxo yoo xam ne danañ ko dollil ak tarbiyaam gannaaw bi mu ko xamalee ba mu mën a jariñoo lim xam tarbiya mooy tax mu mën a jariñoo loolu bu fekkee ne yar nañ suñuy doom tarbiya leen waxuma ne njàng mi jarul muy sori waaye lu mu ci am dana doy ndax tarbiya li muy jariñ ci doomu aadama bi mooy day defar sa ruux ba lépp lu baax fu mu nekk day riir ak sa ruux te luy safaam da lay dëddu jëm ci ngëm yàlla ak bëgg ko akub dogu ak cër yuñ mooñ ci jaamu yàlla say cër dañ koy ndargan ci jaamu yàlla boo jëfee muy jiw boo waxee muy jiw boo yëngoo muy jiw loo def muy jiw loolu mooy tar bi te loolu jàng kese du ko maye jàng kese du maye loolu moo tax sëriñ bi waxoon na ko ala man jaa ilayna bi mahdi darsi faqat falyansarif wa man araada ma aradna falyasir bi am bi sayrina wala yaqum bi amrina loolu sëñ Tuubaa koo xam ne jàng kese moo la fi indi man ngaa laxas te seet foo ko defe waaye koo xam ne dangaa bëgg a jëm fañ jëm tegal sa gët ci nun te def sa yitte ci nun te roy suñuy jéego te luñ la digal nga def ko doo dengi dengi loolu mooy tar bi ku ca jaarul nag doo ko mën a def kenn moo tax doom dongay sëñ alaaji yii ñu jaar ci daara ji ak ñi fi nekkandi te ñuy ñaan muy yokk ñooñu ñoom boo leen xoolee da nga xam ne ñii dañoo boole jàng ak tarbiyo